tey ci bésu gaaw fanweeru fan ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñu dënk wér yaram askan jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñetti fukk test yi ñu ñu def ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi laale woon ak ñi amee doomi jàngoro bi amul benn kaa importé ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn cas issu de la transmission communautaire maanaam ñi amee doomi jàngoro bi te xamuñu fi ñu ko jëlee ca ñooñu fukk ak juróom-ñett la nemmee ko ci Kaolack fukk ak juróom-benn ca Saint-Louis fukk ak juróom ca Thiès juróom-ñeent ca Touba juróom-ñett ca Mbour juróom-ñaar ca Mbao juróom-benn ca Dakar Plateau ak Maris juróom ca Almadi medina Mermoz ak Rufisque ñeent ca Diofior Guédiawaye Matam Popenguine sokon Tamba ak zone ñett ca benn tali Cambérène Linguère Mamel Parcelles Assainies Pikine Point E Pout ak Sindia ñaar ca Diourbel Fatick Guinguinéo HLM Kédougou Kër Ndiaye Lo Hombol Mékhé Nioro Sacré-Cœur 3 Scat Urbam Sébikotane Thiadiaye Yeumbeul Yoff ak zone de captage benn ci cité Aliou Sow cité Gadaye cité Kër Damel cité Mista cité SHS cité Tako Darou Khan Fan Ok Kër Massar Kër Momar Kolda Liberté 3 Liberté 6 Ngafaru Ngor Louga Wakam Passy Pété Podor Port Rebeuss Sicap Baobab Sicap Karak Thilogne Vélingara Yarax ak Ziguinchor téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar malaat ci ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak juróom malade ñoo ngi réanimation ñeent malaat ñàkk nañu seen bakken bésu dëmb ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom benn ak ci ñooñu ñaar junni ak benn ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañu si juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ñàkk seen bakken mu des ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ci hôpital